mbokk yi wala Macky Sall day arrêter processus de criminalisation des mouvements sociaux de criminalisation des luttes sociales de criminalisation des activistes et des politiciens ñaar moo mën am dañuy teg ci suuf ndànk projet bi wala mu abal ñu Macky Sall dégage le projet dégage ou Macky Sall dégage mbokk yi la lutte continue nous sommes loin d'avoir perdu Macky Sall le nervi néocolonial Macky Sall le terroriste en chef n'a pas encore gagné seen majorité mécanique bi ñun suñu majorité sociologique ci biir mbedd yi ci biir taax yi ci biir kaw ga ñun ñoo ko ëpp doole donc génn leen génn leen ñun buñ ñu bàyyee on vient on viendra vous retrouver pour continuer xeex bi la lutte continue nous vaincrons euh, ñun ndaw yi man ndaw yi surtout laay waxal ndaw yi samay samay morom ëllëgu réew mi si ñun la dépendre ñun ndaw yi donc duñu si tànn kenn di salfaañe suñu arc démocratique yi ñu jot a amagum soit Macky Sall day reculer ci projet euh, anti démocratique am bi wala mu abal ñu suñu pale ñu fel keneen koo xam ne mérito na yelloo na euh, diriger les Sénégalais parce que dañoo nekk de euh, peuple boo xam ne nous sommes de peuple de résistants dañoo gëm suñu bopp xam suñu sa ak suñu yelleef te lu ñu am ne suñu maamee lu ñu xeex ba ñu ba ñu ba ñu toll fii nii lu ñu seetaan Macky Sall di ko jël di ko def ci mbalit bi donc appelons à la résistance à tous les Sénégalais et Sénégalaises surtout aux jeunes nga xam ne ñun su ëllëg la def donc yéen a ko déggandoo nous comptons sur le peuple le combat vient de commencer on n'arrêtera jamais à moins que Macky Sall arrête